Bawah ni? Wow. Sai. Aí já sama-sama. Aí já sama-sama. Gede tak mentok. Baik, ngalah. development nhân dân bột là lò gây được các liên tục các bạn đừng Mesela momento. eh, departamento. Viene el d a t a m n t o احنا انتوا kii di ancien DG bu Senelec di Makhtar Cissé dafa taxawoon ne dafay dañuy wàcc courant bi premier décembre

ñu wax ñoom waaye nag xamuñu nag lan lay wax moom. li nga xam ne mooy Aly Ngeng Sy bu Barcelone. parce que ñëpp ñu xam ne ki nga xam ne mooy. waa ji naan mu ngi naan ndax jeex na wala jeexul. waaye Sall bu yaanaam loolu daal moo xamul ci place bi. yaakaar naa ne la banque ci place moom ak ci biir àjjuma gi.